salaamaaleykum mbokki internet yi dalee nag jàmm ci seen chaîne tv préférée ñu daal di ñëwaat ak yéen ci li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci nangu bi nga xam ne le président Macky Sall def na ko ci décision waa conseil constitutionnel date bi nga xam ne ñoom candidat yi wax nañoo daje ngir daal di koy mën a choisir ak sortie médiatique bi nga xam ne kii di Khalifa Sall daal dina koy amal gannaaw waa conseil constitutionnel décidé annuler report élection présidentielle ñu tàmbalee li gën a fës ci bopp xibaar yi ak waa journal l' évidence moom nag daal dinay fësal ci xëtam bu njëkk tax le président Macky Sall bëgg a libéré kii di Ousmane Sonko ci na mu gën a gaawee am na sax ñu naan la semaine prochaine incha allah leader ex parti Pastef bi dinañu ko bàyyi mu ñibbi këram ce n'est plus qu'une question de jour journal bés ndax nee na kii di Ousmane Sonko ak Diomaye Faye bu fekkee bàyyi nañu leen ñu daal di ñibbi kon sénégalais yi nañu xaar benn redoutable campagne Sonko Diomaye ndax comme ni ñu ko doon waxee ay jamono ci ginnaaw njiitu réew mi projet de loi d'amnistie bi nga xam ne moo ngi ko doon bëgg taxawal lam ci bëggoon permettre kii di Ousmane Sonko mooy mu daal di duggaat ca course présidentielle bi mais malheureusement loolee antuwul kon ñoom waa ex parti Pastef kii di Diomaye Faye la maintenir journal Le Dakar waa ne njiitu réew mi daal dina décision waa conseil constitutionnel sans problème sans pipi mot il s'engage à respecter l'état de droit Sud Quotidien ne jamono yuñ toll njiitu réew mi ca loolu lay dox ba tax na ay fan yi di ñëw incha allah daal dinañuy ab daje foofee ca palais report élection présidentielle yi ab réunion restreinte daal dinañu koy amal ak collaborateurs yi ba xaaju guddi ga alors que opposition bi nangu dem ci dialogue bi au pas le 2 avril incha allah kii di le président Macky dina jébbale pouvoir bi journal direct news mel ni ku koy tontu nee nag concertation yi dafa nekk la nga xam ne lu war a am la ngir ñu daal di mën a ab consensus sampaale ab laaj nag jëmale ko ci juge bi di Cheikh Tidiane daal dinañu koy proposé nekk le 3 wala le mars ngir ñu daal di ciy amal élection présidentielle yi pour rappel ca biir date bi nag wax nañu tey sóoraale ñaar fukki fan ak benn yi nga xam ne candidat yi jàll pour élection présidentielle yi dinañu ko soxla ngir daal mën a baatax campagne te candidat bu nekk à 15 jours du scrutin le président Macky Sall wax na laa jébbal ab fichier électoral le quotidien yéene kaay ne xel mën naa dal ne élection dina am dans les meilleurs délais ndax le président yi ak différents acteurs yi jamono ne na ñu i ko doon contesté ay fan ci ginnaaw kenn mënatu ci dara dina am journal Walf Quotidien ni kii di Khalifa Sall nag ca sortie bi nga xam ne amal na ko démb dafa mel ni ci doon waaj jël revanche ci kii di Ousmane Sonko Les Échos ne opposant bi nag nee bu fekkee ne njiitu réew mi daf ko woo ci dialogue dina dem wuyu ji ko amul dara wala kenn ka nga xam ne mën nga ko koo aaye mu daal di samp ab laaj nag jëmale yu toll nii ñëpp trop intrigué la mu bëgg mooy ñu daal di koy expliquer ana lan la ñuy ruumanaat lan la ñuy nëbb ci suuf journal l'observateur ne dafa mel ni dafa am yenn ci ay candidats yi nga xam ne dañu fay jaarale muuma ci datu élection présidentielle yi ndax ils sont partagés entre le avril ak weeru koor gi journal libération daal di ñëw ci réaction internationale bi tàmbali ko ak waa union européenne nga xam ne ñoom daal di nañuy sàkku ci autorités yi ñu mettre a sénégalais yépp ñu respecter décision conseil constitutionnel bi ambassade États-Unis bi nekk fii ci réewum Sénégal nag nee ñoom la yaakaar mooy citoyen sénégalais yi dinañu am occasion dem bientôt ci urne yi waa ONU ak CEDEAO ñoom daal dinañuy sàkku ci bépp acteur politique ba nga xam ne élection yi concerné na la nga dem dialogue ji ngir ñu daal di koy mën a amal dans les meilleurs délais journal Le Réveil daal di ñëwaat ci yenn témoignages nga xam ne ki démb daal dinañu koy amal kii di ACK

affiliation politique ak carte yi nga xam ne bëgg na ci nag ñu daal di amal ab suppression du parrainage mais aussi ñu daal di yokkaale montant caution bi jëlee ko trente daal di ko yóbbu ca cent millions de francs CFA. am ay yéenekaay sax yuy samp laaj naan dafa mel ni le président Macky Sall force restera la loi bi nga xam ne mu ngi ko doon wax sénégalais ay jamono ci ginnaaw. mel na ne dafa pare ngir daal di koy wane ouvertement ndax ndax la moon ndax mooy daal di exécuter pleinement la décision du conseil constitutionnel. kenn mu gën a gaawee dina amal ay ay consultation nécessaire ngir ñu daal mën a xool ana naka la mën a organiser élection présidentielle l'observateur ne ab rebondissement daal dinay am ci mbër bi ñu faatoon ca benn concert Sidi Diop en 2021 xale yi nga xam ne ñoo jëfen li ni nag démb la leen doon atte ca chambre de criminel bu Mbour bi bu ñu xeful nag dinañu leen tëj seen géeru dund il risque la perpétuité gannaaw ancien premier ministre bii di Mohamed Boun Abdallah Dionne injustement ci candidat élection présidentielle yi mais mënuñoo contester décision waa conseil constitutionnel bi mu mel ne nag ku pare pour ànd ak mbooloo wam ji ña faxee l'opposition bi ne na moom nag benn combat dong la am mooy ñu daal di fiy régime bi fi nekk waa Thiès nag dinañu sant yàlla daal dinañu fay démanteler benn gang d'agresseur que jiite woon nag moo nekk mbër mii di wuye ca turu El Hadji yi deux heures du nag daf daal di xàmmee gannaaw li ni mel di dem commissariat déposé à plainte contre moom ba ka takk der yi tegee loxo nag fekk na mu ngi nekkoon ca benn gargote après am na aussi ay plainte yu bëri nga xam ne daal dinay tegwaat ca ndoddam la ne moom moomee moo leen doon agressé ca xaaju guddi ya démb ci vendredi matin bi daal dinañu koy déféré ca parquet bu Thiès moom mbër bii di El Hadji Gaynde la koy toppee nag moo nekk association de malfaiteurs beneen yoon ci yeneen i jotaay yu